réew mi coow mi bare na nañu bàyyi te liggéey nañu bàyyi coow li te liggéey moo gën kenn ku ne nee na Sénégal ko saf ñi Sénégal saf nañu toog waxtaan jéem a defar senegal ñaareel bi mooy li fi nekk ci euh, musiba jóge ca yàlla du jàngoro dañ koy tuddee feebar bi waaye du feebar de feebar dafay nekk góom baa mu nekk lu ñuy bandaas wala leneen waaye kii kenn mën ko bànd kenn xamul fu muy jógee ci yàlla la bàyyi ko balaa la balaa nag am na saafara boppam waaye du wër di wax rek ak di joxe bilan loolu du ko saafara ñi nga xam ni ñooy état bi itam nañu wax ak population bi wax leen dëgg ni leen li fi nekk lu fi wàcc la amuñu moyen mënuñu ci dara xamuñu ci dara ñun ñëpp a ngi daw pour bugg a mucc nañ ko wax population bi parce que population bi comprendre guñu ba léegi